seen xibaaru caada ci King FM seen mbokk yi dalee nag jàmm ci seen xibaar li ci a fës nag tey ji dinañ waxtaanee wàllum cinéma jëmale ko nag ci lancement wu ratonga club bi buñ ci jógee dinañ waxtaanee wàllum mode nag jëmale ko ci lentille cosmétique yi nga xamante ne jamono ji nag um, jigéen ñi tàmm nañu ko bu baax waaye itamit nag na ngeen ko moytu bu baax ndax mën na leen yàkkal li nga xamante ne moom moo di seen gis buñ ci jógee waxtaanee wàllu musique jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Spice nga xamante ne uh, fas yéene nañoo dem uh, tournée waaye kii di Victoria Beckham nag dañu ko nar a remplacer Eh, kii di eh, Katy yi ñu nar a jeexalee nag eh, xibaar yi ak li nga xamante ne moom moo di tàggat yaram jëm ci taekwondo Moustapha Kama médaille d'or nag mi nga xam le ni dina def lépp lu mu mën ngir gagné benn médaille ci li nga xamante ne moom moo di JO 2020 ñu jàll léegi léegi ci yaatal bi. seen xibaaru caada ci King FM. mbokki ma delluwaat di leen nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen xibaar ci aada nag Kati Ndiaye féetewoo wàllum kàddu gi Kader Lo féetewoo wàllum xarale gi Yacine Pouy féetewoo wàllum digital bi. actualité. dañ ko da waxtaanee nag moom moo di eh, Justin Bieber ak eh, Hailey Baldwin mi nga xamante ni dañoo daal di eh, marié wu ñoom ñaan nag mi nga xamante ni ñaari weer dong lañ toogoon nag soog di fiancé wu jamono yi nag ñoom ñaar nag marié wu nañ waaye dañu ko nëbb ñëpp dañoo daal di dem nag foofule ca New York nag nëbbatu làkkatu marié wu fa ba tax na nag kii di magazine people nag moom moo ko daal di xamle ñuy xamle ni mariage boobu boobule nag famille wu ku góor ke jigéen ki ñëpp kenn nekku fa waaye nag ñu ngi xamle ne dinañ daal di def benn fête boo xamante ni danañ ca invité seeni xarit seeni famille ngir won leen ni ñoom daal bëggante nañ bu baax a baax cinéma na ma leen ko doon waxee rek ci euh, tàmbali gi cinéma gi nag danoon nar a waxtaanee li nga xamante ni moom moo di euh, lancement bu euh, Ratanga Club mi nga xamante ni ñoo ngi ko doon amal foofule ci centre culturel Blaise Senghor ni ki fukki fan ak juróom ci weeru septembre ñu déglu ki nga xamante ne moom moo di bu Diané muy indi ci ay leeral. waaw lancement bi tey daf doon permettre comme ni ma ko waxee ñu fësal déjà li nga xamante ne mooy euh, suñu existence mooy suñu taxawaay fii ci Sénégal euh, donc ci li nga xamante ne mooy weer yi ci topp ci biir euh, année bi ñuy wax 2018 Ratanga Club Sénégal war na dem ci lu ñuy wax ñeenti région du Sénégal muy Thiès bu ñu demee Thiès dinañ fa def benn panel waxtaan ak ndaw ñi jaar fa dem buur def li ñuy wax projection de film c'est la vie fësal li nga xamante ne mooy série bi waxtaan ak ndaw ñi ak ñi nga xamante ne ñooy autorité yu nekk foofu ci wàllum wér-gu-yaram wankat ni li nga xamante ne mooy wér-gu-yaramu njur nekkul li nga xamante ne dafa am kersa torop ba waruñu si mën a waxtaan suñu biir kër wala mënuñu si biir waxtaan suñu biir gox dafa toll tey ñu gis ni ndaw ñi ñu ngi ci ay loraange yu bëri ñu ci ëmb yu teel yi ci biir école bu ñu gisee JEP mu ne 1971 cas de grossesse non désirée entre 2011 ba 2014 ci biir établissement scolaire yi ñu nekk chiffre bi nga xamante ne muy xayma boo xamante ne xayma bu ngand la donc ñu wax a jug ñun tamit pour bay suñu waat ci loolu noonu mais def ko ci ak anam bi nga xamante ne mooy anam yeete ba pare di reetaan décembre dinañu def euh, benn tournée bu ndaw ci cinq établissement ci biir année 2018 pour mën a xool effectivement ndaw ñi nga xamante ne ñoom lañu fekkoon ci vacances yi seeni gox jot nañu fekk leen également euh, ci année scolaire bi ci biir école yi pour mën a waxtaan ak ñoom loolu dinañ ci lëkkaloo ak ay partenaires yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci côté jàngale mi yor jàngale mi ci biir école yi yéen yéen a ngi doon teewlu ki nga xamante ni nag moom moo di ah, bu Diané bokk ci li nga xamante ni moom moo di Ratanga Club mode waxtaanee nag li nga xamante ne moom moo di lentille cosmétique yi nga xamante ne jamono ji nag xale yi jigéen ñi bëgg nañ ko lool jëm sax ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo ji euh, góor ñi li ma mën a indi nag euh, bëri na lu ci mel ni euh, changer lii di couleur sa bët yi waaye itamit faj lii di seen bët waaye nag oytu leen bu baax a baax ndaxte yi la nag mën na leen indil ay jafe-jafe jëm ci seen wàllum bët ñu daal di ciy déglu Khadija Maron wuy ñu ci ay leeral. yenn si xeetu mode yi yu si mel ni lentille cosmétique yi nga xamante ni mën nga soppi sa ndoxu bët am na si yoo xamante ni pour corriger ñi am feebaru bët la lu si mel ni myope astigmate am na tamit ay correction pour ñi am yi seen tànneefu couleur mun na gën a fës coloris ñu tàmmoon di gis mu ngi tàmbalee di gën a yokk ak soppeeku pour mu gën a yànj attention ci wàllu toppatoo ak set mun ngeen ci def nànk bu baax a baax ndax mën na indil loraange ci teg bi ak teg bi ci microbe yi tamit que mu nekk lentille cosmétique yi wala lentille correcteur yi ñu nemmeeku ay xeetu lentille yu bari lu si mel ni lentille remplacer lentille yu njëkk ya lentille yi corriger bët yi ak lentille yi rafetal bët yi. musique. ñii di euh, Spice Girls nag ñi nga xam le dinañ dem nag ci seen euh, tournée bi ñu doon waajal waaye nag euh, la ca daal di gën di fës nag moom mooy di kii di Victoria Beckham nag dañu ko nar a remplacer ak ki nga xamante ne moom moo di Katy Perry ki xam le loolu nag moom moo di mel bii mi nga xamante ne dafa bokkoo ci groupe boobule ñu daal di déglu ki nga xamante ne moom moo di ñaaña ñaaw loole nag euh, dinañ ci daal di euh, dellu si waat ba tey nag dañuy desandi ci wàllu euh, musique nag waxtaane li nga xamante ne moom moo di waa Aten Trap mi nga xamante ne danoo nar a fête lii di seen fukki at ak juróom-ñett nga xamante ne am nañu ko ci carrière musicale jëm nag ci wàllum hip hop loolee ñu ngi ko nar a def nag ni ki fukki fan nag ñett ci weerub octobre daal di déglu ki nga xamante ne moom moo di Amath mu wax ñu li nga xamante ne moom la ñuy waajal. ko créé 2000 2018 am na 18 ans donc dañuy célébrer ans d'existence groupe bi. bi ci milieu culture urbaine ndax depuis 2000 ba léegi lu fi xew dafa bëri depuis 2000 ba léegi euh, liggéey nañu bëri et puis nañu bëri nest pas donc lu bëgg événement bi nekk benn commémoration benn rencontre pour ñëpp ñoo xamante ni am nañ ñoom ak ay relation ci milieu musique milieu showbiz en général pour vraiment mun a ñëw def benn fusion créer benn spectacle boo xam ne le 13 octobre lay am yëmbal centre gàlle noonam di daal programme bi muy tëddee euh, am benn final ndaxte ci 18 xamante ni bi benn concours d'arabe la de battle dance de cypher de graffitis et de défilé de mode streetwear yoo xam day xew dans trois communes différentes yëmbal nord yëmbal sud ak Malika nest pas donc euh, jour final moom mooy nekk activité restitutive yi ñuy def ndaxte final lay nekk ci jour boobu en même temps pour artistes yooyu noonu yoo xam ne commencé nañ presté depuis benn moment ngi nii nest pas ndax le septembre sax moom mooy nekk à partir de vingt deux heures et quart dinañ def euh, euh, benn benn benn spectacle boo xam ne rappeurs yu nekk yëmbal yëpp lañ ci boole ndaxte événement bi on va faire dañ ko bëgg a def événement banlieue quoi. sport. waxtaanee li nga xamante ne nag moom moo di euh, démonstration face Cap Vert nag jëm ci demi-finale boobule équipe nationale bu Sénégal nag U17 nag euh, naroon na jàkkaarloo ñi nga xamante ni nag euh, ñoom ñoo di équipe Guinée bi foofu la ca stade du Diouf. ci euh, Rufisque mu nekk nag finalu euh, tournoi yi nga xamante ne qualificatif la jëm nag ci kan U17 yi foofu la ca Tanzanie atub 2019 euh, ba tey nag dañuy desandi ci wàllum tàggat yaram waxtaanee li nga xamante ne moom moo di taekwondo jëm ci ki nga xamante ne moom moo di Moustapha Kama mi nga xamante ne daal dina jël lii di médaille d'or moom mi leen nag mi nga xam ne ni dina def kémtalaay kàttanam nga daal di gagné nag benn médaille ci li nga xamante ne moom moo di JO yi ci atub 2020 moom mi leen nag ñu ngi xam xamal ni niki dibeer la daal di jël médaille d'or boobu la nag ca l'Open bu Pologne. loolee nag ma ngay wane ni xibaar yi ma ngay jeex nag yéen ñi nga xamante ne wàllum pecc ak Rolorsi moo leen neex loolee tàmbali na nag ndax waa Afro si dañ si tàmbali nañ seen mbir ndiki ah, fukki fan nag juróom-ñaar ci weeru septembre nar koo jeexal nag ñax fukki fan nag juróom-ñaar ci weeru septembre jëmale ko ci ay activité de stage ñu koy def nag bis bu nekk lu tàmbali 9 ci suba jàpp 13h foofu la ca centre culturel bu Blaise Senghor di ngeen am li nga xamante ne itamit moom moo di dîner de gala bu association Tringa xamante ne dañuy dajale ay koppar nag ngir jox ko tout tànk yi nga xamante ne amuñu ay waajur fii ci Sénégal loolee dina am niki fukki fan ak ñett ci weeru octobre yéen ñi nga xamante ne wàllu musique moo leen neex di ngeen am euh, concert Hakim niki euh, ñaar fukki fan ak benn ci weeru euh, septembre fële ci théâtre national Daniel Sorano waaye itamit yéen ñi nga xamante ne wàllu mode moo leen neex di ngeen am lancement wu Marc Diokoude foofu la ca Saint-Louis niki ñaar fukki fan nag juróom ñetti jàpp ñax fukki fan ak juróom-ñett ci weeru pa septembre mbokk yi nag lii la leen indiloon ci seen xibaar ma di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal kóolute geeg ànd gi nga ànd ak King FM 99.4 di jaajafal bu baax Kader Lo ci wàllub xarala gi jaajëfal bu baax itamit Yacine Pouy ci wàllub digital bi ma leen jox dig daje su incha allah ci yeneen xibaar.